di am mbégte lool ak kontaante ci ànd ak ci jotaay bii waaye di leen ndokkeel bu baax ci weeru mag bi ñu nekk di weeru sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ci ndokkeel mbooleem jullit yépp rawatina sunu sang bu tedd bi di a cheikh Muhammadul Muntaqa di teg loxoom ndokkeel bi waaye di ko siyaare bu baax mu wàcce ko ci mbooleem jullit yépp xam ngeen ne ni ñu ko baaxoo defee ànd ko ak kuréel gu mag gu am solo bii di kuréelu liggéeyal ku tedd ki ni ma ko baaxoo defee nga xam ne yitteem yépp jàngale la ak yeete taxawaay bu am solo bi muy taxaw ci màggal gi ba am ci bis bu ràññeeku lool ñu di ko wax Rabian Safar noonu itam la koy amee ci weeru tedd wi di weeru gàmm waaye mbooleem at mi yépp noonu la koy doxale tey nag ñu ñëwaat fii ci bërëb bu tedd bi ci wàccaay yooyu ñi waajale guddi gu màgg gi ñu dëgmal waaye weer wi muy wàccaayu gàmm ñi ànd ko ak kuréel bu mag bi di muxaddamatul xidma waaye seen bu mag bi di GMT TV tey ñi dalal sunu mbokk di boroom xam-xam bu mag waaye di gëstukat di Seydina Omar Mbacké moom Serigne Cheikh yaakaar naa doonul ko ñuy présenté xam nañ ko bu baax a baax kon dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu doog a dugg ci jotaay bi seq ak moom ay laaj ak tontu yoo xam ne lépp dañ ciy jublu ngir mu jariñe yaatu lool kon dañ koy bàyyi mu nuyoo moom Seydina Omar bismillah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Muntaqa mi nga xamante ni moo fi toog jataayu sëriñ bi di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala fekkul na aw fanam te yokk ko wér ba naal yu am solo yi nga xam ne naalal na ko sëriñ bi naalal ko yoonu murid naalal ko lislaam bépp suñu borom jàppale ko ba mu àggale ko te fekk yëpp fekk lépp mook taalib yi ginnaaw loolu ñuy nuyu bu baax kuréel gi nga xam ne ñoo ñu dajale fii te mooy kuréelu liggéey liggéeyal ku tedd ki muy ay tut tànk yoo xamante ni wax dëgg yàlla seen yitte ñëpp xam nañ ko mooy tasaare njàngaleem sëriñ bi te ñu ngi ciy def ay jéego yoo xam ne wax dëgg yàlla am na solo gannaaw ba ñuy nuyu bu baax a baax waa muqaddimatul xidma ñi nga xam ne ñoo yore wàll liggéeyu jumaa ji ñoom itam ñu rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom tabaaraka wa laa gën leen a dolli tawféex mu musal leen ci lépp loo xam ne lu yàq la di la nuyu yow Baye Serigne di ñaan suñu borom gën laa dolli tawféex kon euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ ciy duggee incha allah. jërëjëf euh, Seydina Omar ubbi gi am na solo lool kon dañuy dugg ci waxtaan wi rek tey nag ñu indi tem bu am am solo. waaye indi ko ci waxtuum muy ahamiyatul ixtifaal bil mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam di tem boo xam ne jamono bu ne war nañu di ko waxtaane waaye rawatina ci jamono yi ñu nekk nag kon Seydina Omar dañuy dugg rek nga waxal ñu ci mënuñoo waxtaane ci tem bi te duñu nafaraat tuur ci dundug sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nga waxal ñu ci yan circonstance ci la feeñee jamono moom sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waa kay jërëjëf Baye Sëriñ ñu leen di siyaar bu baax a baax thème boobu nga wax ñu war ko waxtaane lu am solo la muy importance boo xam ne am na ko importance feetu wala màggal juddub yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàpp ko daal muy ab bis boo xamante ni <coughs> saa yu rek ñu koy feetu comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom xam-xam yi jàngale waaye comme noonu nga ko laaj itam am na solo lool te mooy ñu leeral lenn ci juddu yonent bi alayhi salaatu salaam ak kañ la ak itam ci yan circonstance la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bisub altine la gane àdduna euh, ci fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awwal bu dee ñun ci ñun wolof dañ koo far mu amale gàmmu rek nga xam ne weeru gàmmu la ñuy wax kon fukki fan ak ñaar ci rabiul awal la yonent bi alayhi salaam gane àdduna tombeek at ma nga xamante ni moom la ñuy wax amul fiil te mooy atum ñay ya atum ñay ya li tax ñu tudde ko atum ñay ya moo di abraha moo bawoo woon fa mu bawoo woon fas yéenee màbbi kaaba ga waaye gis nga la nga xam ne moom la ko sunu borom tabaaraka wa taala teg mm-hmm. te mooy lam wa leeral ci alam tara la fa'ala ko ba nam jeexee kon loolu dafa nekk xew-xew bu rëy rëy ci arab yi bañ bay far ñaare lépp loo xamante ne am na ca rek ca at mooma ñu ne ñu tudd ko amul fii moo tax at moomu moom la yonent bi alayhi salaam gane àdduna bu dee ci gàddaayu Isaa dafay tolloog cinq cent soixante te mooy juróomi téeméeri at ak juróom-ñaar fukk bi ko gàddaayu Isaa amee ci weeru avril euh, ci la sa yonent bi alayhi salaatu salaam feeñ yonent bi alayhi salaatu salaam nag judd ci ay circonstances yu xaw a doy waar euh, ci ngay xamee sàmmug yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy gane àdduna jërim la ndax fekk na way jërim bu góor te mooy Abdullah ibnu Abdul Muttalib génn àdduna euh, bi muy gane àdduna kon fekk na way juróom bu góor euh, génn génn àdduna nga xam ne Abdul Muttalib mi nga xamante ni moom moo jur baayam moom moo ko sax reyal gàttu tudd ah, mu nekk ca loola ba nekk way juróom mu jigéen di Aminatu bintu Wahb mi nga xamante ni mu ngi askano woon ci benn giir bu ñu wax bani bani Zuhra bani Zuhra ak banu Hasim ñoom ñëpp ñoo bokk Quraysh ñoom ñëpp ay Quraysh moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam amul fenn foo xam ne génn fa Quraysh waaye deful lu weesu juróom benni at way juróom wu jigéen daal di génn at kon yonent bi alayhi salaatu salaam naka mu am juróom-benn at rek ñàkk na way juru góor ñàkk way juru jigéen kon euh, jirim la baayo la comme ni ko wolof yi di waxe abu abu euh, maanaam abdul mutalib daal koy jël nag yor ko nag muy maamam nekk moom ba xëy génn àdduna euh, mu daal di toxu ñëw ci ki nga xam ne mooy abu taalib mi nga xam ne mooy bàyyi seydina ali ibn abi taalib mu yor ko jàppe ko koo xamante ni comme ku mu jur la da bëggoon ko lool daan sonn ci moom lool ba jamono yi nga xamante ni yéefar yi sax taxaw nañ temm ngir mu jébbal Abdul euh, Abu Taalib jébbal leen yonent yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mm-hmm. pour ñu sàkkal ko pexe Abu Taalib dafa bañ ne balaa kenn si ci yonent bi aleyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci sama kaw ngay jaar nekk nag moom ca lool ba mujj sax ñu embargo ko mm-hmm. moom moom euh, Abu Abu Taalib mm-hmm. ak Banu Xaasim gépp ngir bëgg ñu jébbal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu bañ rek lu ne daj ni ko ci kon ci xeeti circonstance yi wax dëgg yàlla ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën a àdduna loolu nag boo ko seetantalee da ngay xam ne ku yàlla waajal la mm-hmm. ndax ñaare ku teel a ñàkk way jur mm-hmm. wu góor ak wu jigéen nit ñi mën nañoo jot ci yow ne yow pour réussir dana jafe ci yow mm-hmm. waaye yàlla fu mu nar a def risaalam xam na ko te xam ne itam nu mu lay waajale kon daal ci xeeti circonstance circonstance yi daal ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam gën àdduna muy circonstance yu jéemi kon barakallah Seydina Omar eh, am na solo lool li ngi leeral ci feeñu sang bu tedd bi yaakaar naa ñu ngi ko waxee rek wane ne def defu sunu boroom ak wàccaay wu mu ko wàccaay ba lu bari de ko ci wane mm-hmm. yaral ko boppam loolu yaakaar naa dana gën a leer bu baax a baax eh, jërëjëf ñuy laaj bi ci topp rek mooy lan mooy ixtifaal bil mawlid buñ ko waxee lan lañ ci jublu ak tam naka lañ ko war a defee ok jërëjëf al ixtifaal bil mawlid euh, buñ ko waxee dañ ciy jublu ni nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi définir hmm. ndax la chaque année ci façon bi ñu koy defee nii hmm. mën nga ne amu amul woon ci Euh, jamono yonent bi alayhi salaatu ak saxaaba yi mm-hmm. ci façon bii nii mm-hmm. donte nag am na aslu boo xamante ni ibnu xajar al asqalaani mm-hmm. euh, génne na ko leeral ko ne man wutal naa gàmmu aslu ci alqur ci sunna ki nga xam ne moom imaamu suyuti rahimahullah moom itamit ñëwaat na ne mën naa génneel gàmmu aslu ci sunna waaw kon dëgg la xëy na defin wi ak nii ñu koy defi nii moom hmm. mën nga ne defuñ ko woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam hmm. waaye nag am na loo xamante ni hmm. mënees na ko caa delloo muy ay ay addila yu leer nañ danañ ci ñëw ci kanam su ko defee lan mooy al ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ñoo ko définir wane ne maanaam ku bëgg a màggal juddu yonent bi alayhi salaam te am ci tiyaaba am ci lañ ci lañ ciy wut euh, ñooñu la ñu wax ne moom lañ koy defee mooy lii may bëgg wax mooy bokk na ci loola mooy daje fi bërëb benn ñu daje foo xamante ci bërëb bu yaatu la bokk fa nekk wala ñu defe ko ci jàkka yi waaye ñu fa nekk di waar ñu nekk fa di waar nit ñi ak di fàttali maanaam jaar-jaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak siiraam leeral itam lenn ci ay jikkoom waaye duñ ca yam mooy nekk fa di ñaan ak di sikar turu yàlla ak itam waajal ay ñam yoo xamante ni yu bari la te neex di ko jox ña nga xamante ni ñoo nekk foofa di taxawe gàmmu ga comme ni ko sëriñ bi waxee fa man taaman hayyaha li man lahu qad ara qad qaraa mm-hmm. mubajjilan fa xabaa mm-hmm. xayraati ahlil himam kon sëriñ bi leeral na yaakaar naa bu ñu demoon ci gis bu sax hmm. euh, sëriñ bi leeral na ni ñu war a gàmmoo népp hmm. waaye nag comme jamono dafa xaw xat hmm. moo tax ñu tënki ko noonu waaye ci gàmmu daal ci dëgg-dëgg nii la maanaam li nga définition bi nga xam ne moom la borom xam-xam yi jox joxe wane ne kuy gàmmu itam te bëgg ci tiyaaba nii nga war a gàmmoo définition boobu doo ci gis lenn loo xam ne day jóg alquran ak sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo tax Ibnu Taymiya mi nga xam ne gaa yi wedd gaa moom moom la ñuy tuddoo mm. moom dafa wax ci téere bu ñuy wax iqtidaau siraatal mustaqim mm. fii muxaalafatin ashaabil jahim mm. dafa wax ne fa taazimul mawlid wa ittixaasuhu mawsiman qad yafaluhu baadu nnaas wa yakunu lahum fiihi ajrun azimun li xusni qasdihim wa taazimihim li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yoon maanaam Ibnu Taymiya loolu la leeral aw kama qaal dafa wax ne màggal juddu yonent bi alayhi salaatu salaam ak jàppe ko benn euh, xew-xew boo xam ne dañu ko wutal jamono boo xam ne bu ba mm-hmm. saa bu agsee ñu def ko mm-hmm. nee na amaana lenn ci nit ñi di ko def mm-hmm. waaye am ci tiyaaba waxul sax am ci ab yool rek waaye dafa ne ajrun azim nit mën na koo def am ci yool boo xam ne bu màgg la lu ko waral mooy li xusni qasdihim mooy yéena ju sell ji nga xam ne moom moo ko lal ci def ko ak itam jublu gi ci jublu màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nga gis ne boroom xam-xam yi li nga xamante ni moom lañ wax ne kuy gàmmu noon nga war a gàmmoo loolu ko ko gàmmoo doo ci gis lenn loo xamante ni euh, lu sunna di xebet la ndax lu ci nekk rek day am addi la ci alxuraan ak sunna bu dee joxe ñam wayuti mën a taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nutimukum li wajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukor dégg nga bu dee sikkar ku ne xam na ko waskurullah zikran kasira bu dee julli ci yonente bi alayhi salatu salaam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bu dee waxtaane jaar-jaari yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla moo njëkk a waxtaane jaar-jaari yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla moo ci ceeg daal wax ne wa innaka la ala xuliqin asim boobu ma ngay leeral jikko yonente bi alayhi salatu wasalaam kon bu ñu toogee ci béréb di fa waxtaane jikko yonente bi alayhi salatu wasalaam loola lu ko gën a rëy amul mhm. façon gàmmin woowu nag loolu la ñuy tuddi al ixtifaal bil mawlidi nabi sallallahu alayhi waaye nag su fekkee ne gis nga leneen nag loo xam ne bokkut ak lii mhm. jàppal na ñoom ñoo ña koy def ñoo ñoo ko tuddee gàmm mhm. waaye loolu bokkut gàmm bi nga xam ne moom la borom xam-xam yi jàngale dëgg yàlla kon foofu lañ ci tënk macha allah leer na lool am na solo li nga leeral yaakaar naa bu ñu xoolee rek ni ko réew mi defee firnde la ci ne lu am am solo la rawatina ci bërëb bi ñu nekk itam nga xam ne exemple la bu mag a mag ci naka lañ ko war a defee te loolu lépp day dëppoog ni nga ko waxee nii rek mm-hmm. waaye dëppoog ni nga xam ne moom la ko sëriñ bi waxee mm-hmm. muy tanzim bi sunna mm-hmm. macha allah kon jërëjëf euh, Seydina Omar comme ni nga ko waxee rek gis nañu ci réew yi ci àddina bi yu bari di ko feetu wala di ko màggal guddi tedd googu xam naa dañuy laaj rek lan moo poussé jullit ñi ci ñi di ko màggale ak di ko fonk ni ñu koy defee nii lan moo ci poussé jullit ñi. ok jërëjëf Baye Sëñ euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam day xéewal goo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala moo nu ko xéewal sunu borom tabaaraka wa moo wax ci alquran ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yabaluñu la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu may nga nekk yërmande nga nekk yërmande ñeel aalam bi mm-hmm. mbindéef euh, yàlla waxaati alquran ne laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulan min anfusihim mm-hmm. yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata mm-hmm. wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin suñu borom tabaaraka wa taala nee na day xéewal na jullit yi xéewal na jullit ñi ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla kañ leen xéewal mooy ba mu yebalee ab yonente boo xam ne dafa bokk ci ñoom min anfusihim donte min anfusihim jooju mu fassiroon yu bari dañuy wax ne euh, liñ ñu koy firee mooy yonente boo xam ne dafa ñëw nekk arab comme arab yi waaye am na ñoo xam ne dañoo wax ne dafay dellu ci jullit ñi rek waaw min anfusihim mm-hmm. dafay dellu ci jullit ñi waaye sunu borom dafa bëgg wax yàlla yebal na ci jullit xeet boo xam ne dafa mel ne ñoom ñëw nekk basar comme mm-hmm, mm-hmm. kon yàlla sunu borom tabaaraka moo leeral ne yebal gi mu yebal yonente bi mm-hmm. la ci ndax koo xam ñëwee daf lay jàngal ay sunu borom tabaaraka la taskiya di yar sa bakkan di la jàngal alquran di la jàngal xikma te liñ ci mooy sunna te fekk lu jiitu loola di ñëw yaa ci ak réer gu kooku bu ñëwee ngir xettali la ci loolu kooku xéewal la kon sunu borom tabaaraka wa moo saxal ne ñëw yonente bi alayhi salaatu wasalaam xéewal la kon loolu yaakaar naa kon am na solo yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam li nga xamante ni dafay metti ci yéen maanaam lu ko maanaam la ay seen coono la mm-hmm. maanaam dafa dafa dafa metti ci moom mm-hmm. da ci am jafe-jafe lool mm-hmm. bu sañoon du ngeen sonn ku xër ci yéen la ku leen bëggal aw yiw la ku leen ñeewent la kon ku mel nii bu la ko yàlla joxee ñëw gim ñëw lu ko gën a nekk xewal amut lu ko gën a nekk xewal amut lu mel noonu nag moo tax ñuy sant euh, ñu ñu ñu koy sante yàlla ñëw gim ñëw ndax kat bu ñu fàtte ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu bawoo bi mu bawoo fële ca Makka gàddaay ñëw Yasrib boobu Madinatul Munawwara Yasrib la tuddoon mhm. dafa ñëw fekk yahood yi ñuy woor mhm. yow ma asbara bi mu wooree bi mu leen fekkee ñuy woor mu ne leen lan moo tax ngeen di ko woor mhm. ñu ne ko parce que bis bii ci la yàlla la baloon Firawna muccaloon ci Muusa te ku ne xam na ne banu Israël lu ne na wan na leen ko mm. euh, bi nga xamee ne yàlla sunu borom tabaaraka wa taala musal na ci Muusa mm. musal ci Firawna mm. euh, maanaam maanaam maanaam labal ci Firawna ñoom nee nañ loolu ci lañ sukkandiku ba tax ñu ne dañ koy dañ koy woor di ko sant sunu borom tabaaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne leen maa leen gën a yee ci Muusa ànd ak ñoom di ko woor foofu yonent bi alayhi salaam dafaa joxoñ joxoñ bu am solo mhm. mooy nit ki mhm. am sañ-sañu bu ko yàlla defalee xéewal mhm. ci benn bis benn da ko ca dàqal lor wala mu xëccal ko ci xéewal mu jàpp bis booba saabu bu bis ba ñëwee mu am jag jaamu yàlla gu ko ko jagleel goo xam ne du ko def ci yeneen bis yi ngir lan sukkurulillah sant yàlla kon foofu yonent bi alayhi salaam moo ko iqraar bu ñu wax ne yahudi ñoom ñoo ko def dëgg la yahudi ñoo ko doon def mm-hmm. waaye yonent bi ñëwee da ko iqraar da ko iqraar ànd ak ñoom di ko def mm-hmm. moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xam nga dañoo wax ne maanaam sunna yonent sunna bu ñu ko dee wax kom mm-hmm. ni ko usul yoon yi di waxee mooy loo xam ne yonent bi moo ko wax wala mu jëf ko wala mu iqraar ko kon tànn ab bis bu la yàlla defaloon xéewal wala mu dàqal la ci lor nga di nga nga nga am jaamu yàlla goo ko jagleel di ko sant loolu lu sax la ci sariya loolu nag moo waral nag ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñëwam mhm. amul xéewal gu ko gën a rëy ci ñun mhm. moo tax ñu ko ñu ciy sant yàlla mhm. euh, di màggal juddug yonent bi alayhi salaam te kat yonent bi alayhi salaatu salaam moo njëkk màggal ak juddoom comme ni ma ko waxoon ci commencement bi rek nee naa la moom mën nga ne xay na ni ñi dajul daw ko def waaye moom moo moo moo njëkk a ñàkk a yemale bisu juddoom ak yeneen ak yeneen yeneen bis yi parce que dafa doon woor sak altine biñ ko laajee ne ko lan moo tax ngay wor sax altine mu ne bis boobu ci laa juddu kon am na jaamu yàlla gu mu ko jagleel goo xam ne jégl daw ko def ci yeneen bis yi kon leer na léegi nag kon comme moom sunu sunu yonente moom dafay yërmande ñeel xeet bi nekk koo xam ne dafa ñëw ngir génne ñu ci ak cànkute mhm. yóbbu ci ci ak njub aku gindiku nga xam ne dañ buñ ko toppee dañuy jariñu al adduna jariñu àllaaxira mm-hmm. ndax yonent bi aleyhi salaam ñëwul rek mbirum àllaaxira mm-hmm. waaye dafa ñëw ngir defar xelu nit ki mm-hmm. ndax xam nga nit ki nga xam ne dafa ñëw yett bant wala mu yett aw xeer sëgg di ko jaamu ak di ko ñaan kooku même bu doon buñ buñ ko diggutoon dara sawara wala àjjana euh, kii sax am xel ci bopp moo nanguwut loolu kooku da xam ne kii moom am am na problème mu xel dal ki ñëw nag di wax ak yow nag ngir génn la ca loola. Mm-hmm. kooka ma ngay defar sam xel. ma nga la bëgg a niteel. Mm-hmm. kon yonent bi alayhi salaatu salaam. Mm-hmm. dafa nekk koo xamante ni mboolem mbindeef yi xéewal la ci ñoom. moo tax yàlla ne yàlla ne ko euh, yàlla ne la xat mën na la walal moom yàlla moo leeral ne maanaam xéewal nga. xéewal nga kon yaakaar naa boo gisee ñuy màggal juddu yonent bi alayhi salaatu salaam xéewal googu ñu ci am ci ak ñëwam moo tax. te bu ñëwutoon mën naa am dana doy waar loolu ndax koo xam ne moo la jële ci ak réer euh, ak réer yóbbu la ci ak njub jële la ci ak lëndëm yóbbu la ci ak leer kooku xéewal gu ko gën a rëy dafa amul ci li nga xamante ni moom mooy xéewal yi barakallah Seydina Omar leeral boobu am na solo lool day mel ne daal gàmmu ak sant yàlla la ci xéewal gu mag gi nga xam ne moom la ñu xéewalee mm-hmm. wala moom la xéewalee jullit ñëpp walla mindeef yëpp kon loolu ak sant yàlla la mhm. sant nag sunu borom digle na ko mhm. ci alxuraanul karim mhm. wax nga it ne sallallahu alayhi wa sallam daan na ko defal boppam xëy na defin wi ak niñ ko defee mën na wute waaye lépp rek daje sant yàlla la ci xéewal gu mag gi nga xam ne moom la ñu xéewale kon loolu mel na ne baax na lool ci ñu xam ko bu baax a baax rawatina ci jamono yi ñu toll ndax mel na ne euh, jullit ñi dëgmal nañ gàmmu lool fonk ko lool kon war na ñu xam lan lan li ñuy fonk lan la. Mhm. lan moo ko sabab. dëgg la macha allah am na solo loolu xam naa dañuy ñëw ci laaj bi mujj bi rek mooy ni nga xam ne noonu la ko jullit ñi di defee. Mhm. di ko fonk di ko warmaal di ko màggal. Mhm. lan la leen di jural. lan la leen di jural waaw lan la leen jural wala lan la leen di jural. waaw laaj boobu am na solo lool. ndax xam nga euh, maa ngi koy waxtaan ak menn mbokk léegi. moo di ne Sénégal gi boo seetloo. ni ñu bëggee yonent bi alayhi salaatu wa salaam. nga xam ne da ngay gis koo xam ne la mu war a xam ci diine sax mën nga ne xamu ci dara bal na nga ko gis muy soloog na muy doxe ay mbiram la yàlla xam doy na waaye day wane ne dafa bëgg xol bi bëgg yonent bi alayhi salaam ci xol bi ba sax boo tuddee yonent bi alayhi salaam day jooy waaye man li ma sama analyse may mooy loolu dara def ko lu may gàmm ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu ñu topp seen ginnaaw dañoo fonkoon gàmm daan dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi mhm. fanaa nee la ne waxtaanee ci jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. yonent bi nii la daan doxale ak soxnaam mhm. nii la daan doxale doxale ak ñam yilifoon ñam dëkkaloon nii la daan doxaleek ñoom wu rafet wi la daan jàngaleek ñoom xeet googu buñ ko yàggee dëggal dëkkal ci bopp ci bopp nit ak ak ak ay noppam loolu da koy jural mu sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ki nga sopp nag day yomb pour nga roy ko. Mm-hmm. day yomb pour nga roy kon njëriñ lu rëy la. ci ñu dajale dajaloo. Mm-hmm. di màggal juddu yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye di nettali siiraam. Mm-hmm. ndax bu fekkee ne dañoo fanaan ak yow lu mat juróomi waxtu wala juróom-benn waxtu. lépp ñuy waxtaan ak yow ci yonent bi aleyhi salaatu salaam. at mu jot ñu def ko. loolu bu yàggee da nga mujj xam ci yonent bi aleyhi salaatu lu baree baree bare. te yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy koo xam ne léppam dañ ko war a roy. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana léppam dañ ko war a roy kon nag euh, bu ñu dajee ci lu mel noonu mhm. di ci leeral li nga xamante ni moom mooy ay ay jikkoom ak nam daan doxe mhm. loolu dafa am solo loolu ndax yonent bi alayhi salaatu mhm. dafa kawe nam daan jàngalee dal gi nga xam ne moom moo nekkoon ci moom loolu nit ñi dañ ko war di xam euh, la sàkk ne ku ñuy wax euh, ki nga xam ne moom mooy Muawiya mm-hmm. am na ko benn saxaaba bu ñuy wax Muawiya ibn ibnul Hakam as-Sulami mm-hmm. nga xam ne ndeysaan da doon doog a dugg ci lislaam mm-hmm. jàngale lislaam ci dëgg-dëgg xamu ko imaam Muslim indi na ko ci sax yi xam nee na uh, Muawiya ibnul Hakam as-Sulami dafa am benn bis muy julli ànd ak yonent bi alayhi salaatu muy julli ba mu yàgg rek am jenn waay ju di sóoli mu xool ko daal ne ko yarhamukallah yàlla na yàlla yërëm te bi te bi mu ngi ci biir julli gi hmm. nee na ñëpp di ko xool hmm. xam naa dañ jaaxle ci li mu def ndax xamuñ mu def hmm. nee na man itam ma tontu leen tontu loo xam lu xaw a ñàkk kersa maanaam daal lu ngeen may xool daal lu ngeen may <laughs> lépp mu ngi ci julli gi nee na fa jaalu yadriboona bi aydihim al afqasim nee na nit ñi jël seeni loxo di ko di ko dóor seen lu wala maara aytum yu sammituuna ni laakin ni sakkoon bu ma leen gisee nag gis ne man lañ bëgg ma noot ma daan noppi mm-hmm, mm-hmm. waaye gis nga lim ci lim ci lim ci maanaam li ma lay leeral fii mooy mm-hmm. dal goo xam ne yonent bi alayhi salaam dal mu am ak njàngalin gu rafet wu mu am Muawiya ibnu Hakam ibnu Hakam as nee na fa bi abi huwa wa ummi falamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne yonent bi alayhi salaam julli na ba noppi mu ne jot naa yonent bi sama ndey ak sama baay Muawiya mooy mm-hmm. wax mm-hmm. maa raaytu mualliman qablahu wala baadahu ahsana taaliman min mm-hmm. nee na lu jiitu yonent bi alayhi salaatu salaam ak ginnaawam gisuma ku ko gën a rafet aw njàngale ku ko dàq jàngale amul fa wallahi maa kahara nii wala daraba nii wala chatama nii waaw gëdduma dóoruma xasuma lenn rek la wax inna haasihi salaa laa yasluhu fiha shay'un min kalaami nnaas mm-hmm, mm-hmm. wa innama hiya tasbiihu mm-hmm. wa takbiiru wa quraan loolu rek la ko wax julli gii daal waxi nit ñi du ci defar dara julli daal ay sàbbaal ak i kàbbar ak njàngum alxuraan waaye waxi nit ñi moom du ci defar dara <laughs> am na ñoo xam bu ñoom rek dañuy dal ci kawam ne ko <laughs> nangam nangam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lewetam dafa yéeme anas ibnu malik nettali na ne am na benn biis muy dox ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mhm. di sol benn làmbaay goo xamante ni najraan la la bawoo mhm. waaye nag cat yee dafa dafa dafa dëgër mhm. nee na bi muy dox ba mu yàgg rek benn arab yi sàmmub arab daat koy dab daat koy jàpp ci baatu mu xëcc ko xëcc goo xam ne xëcc ko tar la mel ni ko poñe anas nee na maa ngi xool catal maanaam dox yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mi ngi marqué ngir poñe bu dëgër bi kaw arab yi poñi mhm. poñi mhm. waaw nee na yonent arab euh, euh, bi daal wax yonent bi sax ne ko yaa Muhammad mur li min maalillaahi lazi indak mhm. alal ji yàlla ji nga denc laa bëgg nga jox ma ci yonent bi sax dafa gestu rek daal di ree daal dig la ñu jox ko ci àll xool googu lewet xeeti jikko yii la ñuy jàng jàngat ci gàmm gi nit ñi di ko dégg te buñ ko déggee dañuy sopp yonent bi aleyhi salaam dañ koy dañ ko dañ koy safoo dañ koy roy te yonent bi aleyhi salaam ku ko roy rek jub kon bokk na ci li ëpp solo ci li nga xam ne gàmmu dana ko def mooy day taqale xooli nit ñi ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam macha allah Seydina Omar euh, tontu bi leer na macha allah kawe nañ yor ni nga ko waxee rek kon mel na ne njariñ li yaatu na lool ndax dana tax bokk na ci njariñ li mooy tax na nit ñi gën a sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm. waaye tax na nit ñi gën koo mën a roy itam mm. ndax fanaane waxtaane ak màggam ay jikkoom loolu yaakaar naa ku bëgg a roy yaatu na lool mm. waaye itam bari na ay njariñ lool yaakaar naa loolu xëy na yeneen tam yi ñëw mm-hmm. dana ci bokk mm-hmm. waaye bu ñu demee ci ci sëriñ bi bind rek ak yim ci wax doy na sëkk wax na ci lu bëree bëri njariñ yi mu am bëri na lool. yaakaar naa du ci xaj. waaw së sëriñ bi moom. mboo déggee ma lay wax loolu ma ne ko ma ne ma xam ne xëy na. Mm-hmm. ni ni mu xatee waaye. Mm-hmm. sëriñ bi moom ni mu ci wax ay njariñ rek. Mm-hmm. da parce que nee na taasimuhu bi sunnati. waaw yaxuuduna lil jannati bu ñu amoon foofu rek mu doy. moom te mu boppam rek. waaye nag ñu bàyyi xel ne ndax taasimuhu bi sunnati la wax. maanaam màggal goo xam ne dañ koy màggal yonent bi ci anamuk sunna. maanaam duñ fa def lenn loo xam ne tey jii. sunna daf koy xebet. parce tànn bis bi moom du dara. nit ku mm-hmm. ci nekk bu la neexee nga jël benn bis ja jëlal ko jaamu yàlla. Mm-hmm. li am solo mooy la nga fay def. Mm-hmm. la nga fay def nag li tax sëriñ bi di wax ne ta'zimu bi sunnati. mooy na doon loo xam ne dara du ci fiironteeg sunna. loola nag la wax ne yaquudunaa li jannati. bi ziyaadul minnati nee na bu buñ ko màggalee ci anamuk sunna itam def ñuy dolli xéwal maanaam xéwali adduna yi. adduna ji ñu nekk nga xam ne jógeguñ fi. nee na màggal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci anamuk sunna. nee na daf ñuy dolli xew waaye nag li muxalisin muazzam mm-hmm. na fekk ku koy def itam sellal sellal mm-hmm. nga xam ne yàlla kese moo tax muy gàmm mm-hmm. gàmmul ngir bëgg dara bëgg daraja ak wane darajaam déedéet day gàmm ngir am tiyaaba kooku la sëriñ bi wax ne kooku gàmm gi dana ko yóbbee maanaam mën na koo jox àjjana mën naa tax itam li nga xam ne moom moo di ay xéwalam dolli ko sëriñ bi am na fu muy waxee sax ne maanaam benn dërëm rek. Mm. boo ko ci defee te sellal rek tax nga def ko. Mm. nee na loolu danga mel ne ku fi teewoon ba. walaw bi xadri dirham. Mm. walaw bi xadri dirham. fa man fa man taaman hayha li man lahu qad qaraa mubajjalan fa xabaha xayraati ahlil imami bu fekkee ne da waajal aw ñam. waajale ko sa kër. togg ko ba mu baax nga ñëw jox ko ñi nga xamante ne ñoo nekk di gàmm. nee na ñi nga xam ne dañoo ay borom yitte lañ seen yiw yi ñu denc. yow da nga denc luñ soxla. kon Euh, li ci nekk kenn xamul nu mu mm-hmm. toll. Mm-hmm. waaye nag yàlla ñu yàlla defal tawfiix mm-hmm. ba ñu mën koo def ni ko sëriñ bi jàngalee. ndax loolu da ci am solo. nañu fexe ba. fu ñu dajee dafa gàmmu yi tamit. ñu moytu góor ñi ak jigéen ñi di jaxasoo. nañu góor góorgóorlu yi tamit. ba ñu fa nekk di waxtaan waxtaan waxoon ne amul amul njariñ. waaye lu ñu fay wax rek ñu doon sikkar. wala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. joxe ñam. nettali siira yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ak yu ni mel yooyu nga xam ne moom lu ci nekk mhm. am na dalil ci alxuraan ak sunna mhm. buñ ko defee rek mhm. li ñu bëgg ci gàmm lépp dañ koy mën a am barakallahu Seydina Omar yaakaar naa am na solo lool loolu moom xanaa dañuy jox mbokk yi rek ñu delluwaat jës bu yaatu na lool mel ne ko te xare ba badar yëg yu bëree bëri maanaam daal lépp njariñ la rek lépp njariñ la waaw xam naa kon dañuy yëgti foofu jotaay bi jox la nga tàggoo say kàddu yu mujj rek jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy déglu Euh, xam naa ne waxtaan wi xam naa ne waajal gi daal te taxul mu demee noonu ndax xam nga biñ ne ginnaaw suba la rek ci lañ ma koy soo ko wax waaye nag lépp loo xam ne jub na ci nañ ña nañoo xam ne sunu borom la. Mm-hmm. lépp loo xamante ni eh, am na yooyu rëq-rëq. Mm-hmm. ci ko doon jéem wax mm-hmm. eh, ñu ngi ñaan ngeen jéggal ñu ko. in uridu illa al islah mastatatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa wa barakatu aleykum salaam wa kon mbokk yi yi nga xam ne ñoo doon seetaan seen bu mag bi lii moo nekkoon jotaay bi. bi nga xam ne kuréel liggéeyal ku tedd ki moo ko doon def di ko waajale guddi gu màgg gi di dalaloon ci sunu gan gu màgg gi waaye di gëstukat di borom xam-xam Seydina Omar kon ñu ngi lay jot li cant mbooloo mi yëpp euh, kuréel liggéeyal ku tedd ki waaye daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal sunu borom dolli la kàttan ak wér gën a leeral xel mi ak baat bi yëpp ba li nga yéenee liggéeyal. lislaam nga def ko ni nga ko bëggee barakallah kon ñoo ngi santaan mbokk yëpp di ñaan jotaay bi sunu borom nangu ko jubluwaay bi mooy fàttalee ak leeral lu ci jub ni mu ko waxee rek dogalub sunu borom la waaye lu ci dëgg ñi nga xam ne nag euh, jam su xeebu si nga xam ne moo doon jéem a leeral rek moom la ñu ngi jégal ñëpp asalaamu aleykum